العبادة ibadatu دي جامو يالا jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam alhamdulillahi والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون تحدثنا قبل أسابيع عن أهمية حسن الخلق وحسن المعاملة ونود أن نتحدث اليوم عن العفو الذي يعد من أفضل ما يتحلى به المرء والعفو أيها الإخوة المؤمنون من أخلاق أهل الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقد تخلق به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليه كثيرا ووصل الأمر إلى أنه كان يرغب مستحق القصاص في العفو ولم يكن يأمر بتنفيذ القصاص إلا على مضض يقول أنس بن مالك رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو وما قصته مع الأعرابي الذي تسلل إليه وهو نائم وحاول قتله فنجاه الله ومكنه منه ثم عفى عنه وقصته مع قريش يوم فتح مكة إلا مثالين من بين أمثلة لا تعد ولا تحصى لما سنت يالا دي جولي يونتبي صلى الله عليه واله وسلم دي نان يالا مودول كو خيو لا كو موت موماكو جابوتام ما صحابام ak képp ku jaar ci aw yoonam baa dinay tukki mbokk yi lu toll ci ay bis ci ginnaaw waxtaanoon waxtaane nanu solo su jikko ju rafet am ak jëflante bu rafet tey nag lu bëgg a waxtaane jikko ju am solo ci jikko yu rafet yooyu muy jéggale ak baale jéggale ak baale nag mbokk yi li ñuy njëkk xam rekk mooy ci jikkooy waa àjjana la bokk mooy ñu nar a dem àjjana dañuy am jikko jooju yàlla ngi wax ci alquran ne na ngeen jëm ci njëggalul seen boroom ak àjjana da nga xam ne ña ngi ko waajalal ña ngi ko waajal ngir ñi nga xam ne tudd ay jikko ba boole ci ñuy baale di jéggale jikko jooju itam yonente bi sallallahu wa sallam da koo jikko woowoon moom ci boppam waaye itam daan ci soññee daan ko xemmeem loo jullit ñi lu bari àggoon na sax ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam àggoon na ci sax bu ñu bu amee ku ñu tooñ ku ñu tooñ ba yoon àtte ne ci ko tooñ mën nañ koo def lu mel ne lam ko defoon moom bu a am sax da daan xiirtal ki ñu tooñ ci mu jéggile bañ euh, sàkku ñu teg ko tooñ lu mel ne lam ko defoon bu demee ba munta ñàkk dogal àtte bi it muy daan yi mu teg ko ki ko yeyoo bu koy def it du ko def ci xol bu sedd du ko def ci xol bu tàll day doon lu ñàkk mu def ko waaye du ko defee ci mbégte sayidna anas ibnu malik radiallahu an nee na mësuñoo andi benn atte ci yonente bi boo xam ne day may ki ñu tooñ bu bëggee ñu teg ka ko tooñ lu mel ne la ko defoon saa masaanaam masaana am rek yonente bi day xiirtal ki ñu tooñ ci mu baale jéggale bañ a laaj ñu teg ki ko tooñ lu mel ne danga ko defoon am na yaari xew-xew yooyu xewoon nañ digganteem ak ñeneen benn bi jenn waaye la ñu ko bettoon yor jaaseem bëgg koo bëgg bëgg jël bakkanam yàlla musal ko ca ba yonent bi jekk ko ba yor jaase ji tiim ko waaye daaw jéggal kooka topp ko def toppandiwut ak moom digganteem ak waa Màkka itam ñoo ko doon bundu xatal ba xajatu fa ba mu génn gàddaay fekk mu néew doole moom ñi mu àndaloon bañ demee ba yàlla may leen kàttan ak doole ñu wëlbatikuwaat ñëw yilifaat Màkka googu waa Màkka ñi ko defoon loole ñu ko defoon ñëpp toog ci kanamam mu jéggal leen ñoom ñëpp yaar yooyu ay misaal rekk lañ ci ay xew-xew yoo xam ne kenn mënu ko kenn xamul fu mu yem yi wone ni mu doone woon buy jéggile jikko jooju itam noonu mu nekkoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa noonu la nekke woon ci sëriñ bu mag bi itam ci Cheikhul Xadim radiallahu anhu moom it digganteem ak tubaab bi la xewoon Gabon fukki nit ak ñett ya yoroon seeni fetal bëggoon a jël kanam moom it yàlla musal ko ca da na a jéggal bi mu nekkee gànnaar am na ku defoon rek lu mel na la waajee defoon digganteem ak yonente bi moom it fexe ba yoot ba fekk ko fa mu nekk moom rek mu bëggoon a jël kanam yàlla musal ko ca waaye dana nañ ko suturaal ba mu génn ba dem yoonam waaye bu ko def dara digganteem ak tubaab bi rek lépp lépp lépp buñ ko tënkee yàlla dooleel na ko moom sëñ bi aar ko ba mu jekku tubaab bi waaye ba mu leen jekkoo itam da leen a jéggal rek yooyu yëpp ay misaal la rek ci taxawaay yi mu am moom sëriñ bi ci jéggale ak baale war na noo xam ne it nag jéggale ak baale firiwut ak néew doole firiwut ak tële bu caagee ni kii jéggale di baale di jéllale dafa tële wala dafa néew doole wala dafa ñàkk fulla wala dafa ñàkk bopp waaye dëgg-dëgg mooy kàttan kàttan dëgg-dëgg mooy mën a jéggale mën a baale mën a jéllale moo tax ñëpp mënuñ ko bala ko nit a man day mënanteeg boppam mënanteeg bakkanam ba euh, man koo àggale foofa ndax yàlla bi mu koy wax lim naan bu la nit defee ab safaan bu ko ko delloo waaye na nga jëflante ak moom jëflante bu rafet ba mel ne sab xarit sa xaritu benn bakkan da caa teg ne loolu nag ñu mën a muñ rek a ko mën a am ñi am cër bu mag rek ñoo ko mën a am kon mooy du lu yomb bu mën a muñ bu am cër moo mën a àgg foofu yonent bi itam sallallahu mi ngi wone loolu di wax ne jàmbaar dëgg du ki nga xam ne ku jóg mu daan ko ku mu xeexal man ko du kooku mooy jàmbaar waaye jàmbaar dëgg mooy koo xam ne bu meree mën a moom boppam mën a téye boppam kooku mooy jàmbaar dëgg doo ngi ñaan yàlla jikko jooju mu defal na ko ak mboolem jikko yu rafet yu baax yépp di ko ñaan mu defal ñu àddina bu àllaaxira musal nu ci sawara